yaa ujja wanzila bi tiwaawani tiwaawanu fiiha al-yumnu lil-mutayaabi xaliila yaa ujja wanzila bi tiwaawani tiwaawanu fiiha al-yumnu lil-mutayaabi. xaliila benn kuréel la boo xam ni dafay def ay affaire u xaalis. loolu woo naa préfet wax naa ko ko nee naa ko dëkk bu mel ni Tivaouane mënuñu fi bàyyi di fi def ay affaire carte xaalis point nee na mi ngi koy toppatoo comme mi ngi koy toppatoo nag nañ bàyyi mu toppatoo ko loolu liggéeyu préfet la incha allah amul benn problème jërëjëf voilà non benn kuréel la boo xam ni dafay def ay affaire carte xaalis mm. loolu woo naa préfet wax naa ko ko nee naa ko dëkk bu mel ni Tivaouane munuñu fi bàyyi di fi def ay affaire carte xaalis point nee na mi ngi koy toppatoo comme mi koy toppatoo nag nañ bàyyi mu toppatoo ko loolu liggéeyu préfet la. incha allah amul benn problème jërëjëf voilà. تواون فيها اليمن للمطيابد خليل يا عيا وانزلا بالتواون tiwaawaanu fii hal yumnu lil